mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu leen di nuyu di leen siyaar di leen jaajëfal di leen sant ñu ngi leen di nuyu ci turu fédération Safinatul Amaan ci turu jëwriñ Serigne Ndonga ak sëriñ Ibrahima Jenn jëwriñu Dakar ñu ngi leen di siyaare bu baax di siyaare waa daahira Wakana Haqqan Touba Moussa sanc di leen jaajëfal bu baax ci dalal gi ak pëseef bi sant nañ leen bu baax a baax gis nañ taxawaay bu baax ngi leen di tey jii nag di bis boo xam ne yàggoon dañ koo sàkk yàggoon dañ ko bëgg muy suñu daje ak yéen ndax xam nañ bu baax seen njàmbaar ci liggéey bi te lépp ñu war koo ànd loolu waraloon na jamono bu nekk ñuy jokkoo ak jëwriñ ñi ngir ñëw def rencontre bi daje ak yéen tey la ko suñu borom dogal xam naa nag am na ci benn sew sew boo xam ne xaw naa diis ci ñun tuuti rek muy li ëpp ci mbokkuy taalibe yi tey yàlla dafa dogal ñu féete Bawol nekk ci liggéeyu tool yi ku ne xam na fi tool yi jamono yii ndax bi kuréel gi jàng daanaka mën nañ ne kuréel 2 moo doon jàng ndax li ëpp ci membre yi kuréel 1 bi ñu ngi bawal kon loolu suñ borom moo ko dogal waaye nag bëggoon nañ mbooloo mi ëpp li ngeen gis waaye yàqu ci dara ndax pas-pas bi moo bu solo ñu ngi leen di ziar di leen indi liggéey boo xam ne ñun ñëpp ko bokk doonte xam ngeen ko sax ndax yéen a ciy bay seen waar waaye nag bëgg nañ. taxawaay yi gën am solo ci kàddu Safinatoul Amaan mën nañoo jël suñu nuyoo rek jaar jaarale ko ci suñu Aliou Ndiaye bi nga xam ne kenn la ci waa Wakana Haqqan te it di ci jàmbaar lool buñ ko tuddee mën naa yóbbaale mboolem rakkam yi nga xam ne ñoo bokk ci daara ji ñépp ndax bu soo sañ ji bokk na ci dëkk yi ëpp ay membre ci daara ji kon nuyoo bi mën nañ ko jaarale ci loxo sëñ Aliou rek mu jaarale ko ci ñépp te muy jàmbaar joo xam ne mate na ko bu baax ndax diiru ñu tàmbali liggéey ba léegi sëñ Aliou mu ngi ci bokk ci ñi gën a doon jàmbaar ci liggéey bi bokk ci ñi gën a sonn ci liggéey ndax mën nañ ne li ëpp solo ci liggéey bi gën a metti moom moo ko gàlloo ndax fu daara ji di jëm fu nekk moo fay jiitu wàllu aménagement bi moo ko yor te loolu ne xam ne da yóbbul ndax da ngay teel a jóg balaa gars yi di ñëw yaa fay jiitu yaay lor ba sax yaay takk rajo loolu ab Baay Faal dëgg moo koy nangu beneen bi ci dolli ko muy wàllu social daara ji ci loxoom lañ ko teg te ku ne xam ne ne social lu jafe lijjanti la ndax wàllu laaj yombul waaye mu ngi koy doxal kenn kàttanam kon sëñ Aliou moomu ak ñeneen yi nga xam ne ñu ngi ci daara ji dëkk ci dëkk boobu ñëpp ay jàmbaar lañ waaye nag li sëriñ bi def ci yéen xam nañ ko bu baax ñu waa sax dafa amal moo tax mu yàgg bëgg daje bii sëñ Modou ñu déglu moo tax ñu yàgg bëgg dajeel ndax Safinatoul Amane li ko tax a jóg li ko tax a jóg mooy ñu ànd fas yéene liggéey Serigne Touba te loolu dafa làmb lu bare bari dafa làmb lu bari ndax ku ne xam ne ne suñu tund wow di làmbaay jamono yi nga xam ne Serigne baa ngi jóge fii di dem ci liggéey mbërëy ba muy tukkib géej ku ne xam na na làmbaay meloon làmbaay bokk na ci li ñi waral sëriñ bi dem ci liggéey boobu ndax boobu làmbaay mel na ni lëndëm goo xam ne dañ faa taal ab siiw ni ko gunóor yi di same di ñëw ngir leer ga noonu la làmbaay meloon ci ak lëndëm nga xam ne jataay yi daan def ca bawol doon na jataay ay jataay yi texee di yoo xam ne fu ne la nit ñi daan jóge ñëw di ñëw di di mooy suñu borom ci suñ tund woowu sëriñ bi liggéey fa liggéey bu rëy ba loolu yëpp day kon ñun dañuy jàpp ne ñun sëriñ bi moo nu xettali moo fekk ci biir lëndëm seetlu ñu dugal ñu ci biir leer kon kooku amuñu fayam ginnaaw ba loolu jàllee suñu jàmbaar yi nga xam ne loolu ñoo ko sàkk woon ci sëriñ bi am ñu liggéey liggéey bu rëy ci bawal ba gis nañ ne li sëriñ bi def ci bawal lim taal ay làmp ci bawal defu ko fenn tund làmbaay li fa li fa sëriñ bi def ci ay góor yàlla mën nañu amul amul Saalum amul amul Kajoor kon nag ñun ndaw ñii war nañoo takk suñu laxasaay bu baax takk suñu laxasaay nekk benn na ko mag ñi nekkee woon ba liggéey seen liggéey bu rëy bu sell boobee ñu takk suñu laxasaay nekk benn ba téye ba taawu ko yëkkati ba ca ba ñëpp seen loolu nag li koy def du Mbuusa moo koy def du beneen dëkk moo koy def dañuy ànd ñun ñëpp. nekk benn muy kattan bu bu am solo ñu mën a liggéey liggéey bu rëy loolu mooy mbébétu saf na lu amaan kon liggéey baa nii loolu nag képp ku ci des ginnaaw yaa ci des ginnaaw ku ci génne sa bopp yaa ci génne sa bopp waaye loolu ñëpp a ngi ci ndax kenn kennal sëriñ Touba rek lañ fiy def daayira boo fi wax aw tur la tur woowee daam jëmm ju muy wuyu jëmm ji mooy sëriñ bi rek ndax boo nee wakkaana ak lu muy wuyoo sëriñ bi lay wuyoo Safinatul Amaan Serigne Touba lay wuyoo Mafatihul Jinaan Serigne Touba lay wuyoo tur yi daayira yi yëpp génn jëmm la ñuy wuyoo muy Seexul Xadiim kon nag ñun ñëpp nañ maase nekk benn nekk ay dongo nekk ay dongo nekk ay taalibe Serigne Touba yu dëggal li tax ànd jafe ci jamono juñ toll mooy bariwaana mbooloo yoo xam ne ànd yóbbu li tax yóbbu mooy mën naa mun àndee li gis gis seen sikkub morom ñun nag ay taalibe Sëriñ Tuubaa rek bu àndee bu kenn gis sa sikkub morom li ñu war a gis mooy kii tànneef la sëriñ bee ko tànn ndax sëriñ bi ñëpp ñi ko topp moo leen tànn kon nañuy xool ci suñ biir ci suñ biir nañuy xoolante jëmmi sëriñ bi ci suñ biir bu ñu ko defee rek lépp mën naa oyof taw ci ñoom dañ ànd liggéey lépp luñ bëgg a liggéey kon waa wakaana àqan safinatu amaana ngi nii lii mooy seenu liggéey liñ bëgg mooy lépp loo xam ne ma ngi taxawoon ko ci bawal ngir liggéeyal Serigne Touba ñu sàmm ko yëkkati ko ba ca kaw ba ñëpp seen ba ku ne xam ne li ñu Serigne bi euh, liggéeyal xam nañ ko jàpp nañ ko te gis nañ ko bu wér kon ñu ngi leen ciy woo bu baax comme ni ko gaa yi defee bàyyi Serigne ñu lay nuyu bu baax di la jox sa wàccuwaay di la ziar euh, yow bokk nga ci ñi soññ waa yi ndax keroog bis bi nga xam ne ñëw nga ci daayira bi ñëw tàbbi ci liggéey bi jënd carte de membre dangaa ñu soññee aw sas muy liggéeyu ziar keroog bi nga ñëwee da ngaa romb gaay yëpp ndax fekkoon nga ñu toog sas ñaari weer ñetti weer ñu nekk ci nam na ba nga liggéey yow da ngaa génn lépp jox kon yow da ngay soññu waa daara ji ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax di la ziar lu bare bari di ñaan si borom mu gën laa rof kattan barki Seexul Xadim kon liggéey baa ngi noonu ñu leen ci woo di leen xamal ne loolu rek moo ñu tax a jóg liggéey Sëriñ Tuubaa nag taalibe bu ci des ci yow la ku ci génne sa bopp ci yow la kon ñi ngi leen ciy woo bu baax di wax ne ni ci sëñ Aliou nekkee bàyyi sëriñ ak ñeneen ñu mel ni ñoom na ci ñëpp ñëw tànn ndax waa Bousso kat ay jàmbaar la Bousso moom mën nañ ne membre yi Wakana ak xan yëpp soxla nañ ñu ci liggéey bi waaw ñëpp lañ soxla ci liggéey bi ñi ngi sàkku ci yéen nañ ñëpp ñoo jënd carte membre bokk ci kuréel bi bokk ci culturel bi bokk ci poste yëpp ñu ngi koy dagaan ci yéen di ziyaare baax sëñ Matar sëñ Matar Ndiir moom bokk na ci ñi fondement liggéey bi boo gisee bëgguma dugg ci lim bi dañoo bari ay membre ci daara bi ndax bu ma limee rek mën naa bàyyi ñenn waaye ñoom it dañ di ay keno ay keno yoo xam ne dañu bokk ci ñi taxawal liggéey bi ndax ci démb rek maa ngi seetaanaat archive daara ji gis ne ndeysaan bis bii tey du hasard ndax bu fekkee ne dañuy wax anniversaire tey dañuy jàpp ne mooy anniversaire daara ji waaw liggéey bi fii ci Dakar ñi ngi ko tàmbali le 21 octobre 2021 te ñu ngi ci mois de vingt mois de octobre kon liggéey bi am na ñetti at ci dem fii ci Dakar bi may seetaan arsif yi daara ji sëñ Matar keroog moo yor kàddu bu waa kuréel gi keroog bu waa kuréel gi jël kàddu di wax ni ñuy répété ak ni ñuy tàbbee ci kuréel gi moom lañu jox kàddu moo ko keroog moo jox moo yor kàddu gi muy jàmbaar nga xam ne kon ci membre fondateur yi la bokk muy lu am solo bi du hasard bis bu am solo ñu ngi gën a soññaan ñëpp di wax ne Safinatoul Aman daal ci lii la nekk luñ mën a dégg ci lii la nekk te loolu nag ci la taay daal bi suñu Tuubaa yëpp war a nekk ñu leen ci tàllal loxo bu baax a baax. sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey